xam nga man sa xalaat nga bopp soo bëggee mu wax la kay. waaw wax. Ah. Euh, laisse am na historique inondation dafa am ñetti mbir cause yi lan la conséquences yi ak lan mooy solution fii la région de Dakar vers les années soixante exode ñu dem ñu bari daw si ñëw Ndakaaru ñu bari fii lañu ñu dëkkoon ci biir Ndakaaru ay almenko ay ay ay Baye Gaynde ak yu mel noonu vers les années 73 ñenn ñi Senghor jël leen déplacé leen dans la banlieue dakaroise bi ñu ñëwee di dëkk li ñu njëkk a def ci erreur ci état bu Sénégal mooy dañoo suñu respecté wuñu li nga xam ne mooy suñu plan d'urbanisation dañoo bàyyi nit ñu dëkk rek ci ñu leen neexee mhm. mu ci jamono dafa amoon ay zone yoo xam ne ay lakk la woon mhm. ay seyaan sécheresse bi bi mu amee yooyu yëpp dafa demoon ba disparaître nit ñi bi ñuy dëkk ñu dëkk ci xur yi bi ñu dëkkee ci xur yi ñëpp ndaw comme dañoo nekkoon ci exode rural ñu bëri ñëw daw ñëw Ndakaaru croissance démographique bi agglomération bi commencé am ñu commencé indi ay problème loolu moo tax man ma ne laisse-moi loolu moo tax ma ne la bi ñu demee ba jamono ñëw taw yi ñëwaat léegi nag ndox du bàyyi yoonam. Mhm. fa ndox ma daan jaar. su amatul yoon day def conséquence day indi ay jafe-jafe ci askan léegi ci changement climatique parce que boo xoolee lam doon taw ca ay atam ba ñu dem ba tawatu ko sécheresse am ñu dem ba déeg yooyu fi nekkoon ci la ay fi ñuy wax te ay lakk wuy ay cuuru ay waruwaay zone yooyu yëpp fi nga xool ñu def ay bassin ay majale ay médina gazon zone yooyu yëpp ay lakk la woon mais d'après étude bi ñu demee bay déplacer les familles dañoo jëlaat ñooñu jëlee leen fii jël lakk yooyu nga xam ne dafa nekkoon ay point ba ñu jël ko def ko ay bassin yi ñu def ko ay lakk léegi tey nag changement climatique dafa am te c'est pas le Sénégal c'est partout dans le monde tey boo xoolee situation bi boo gisee inondation bu ñëwee dans les autres pays su ñëwee def benn benn benn moment mhm. du am problème bi ñun ñu ñu am parce que ñooñu dañoo respecter seen plan d'urbanisation même bu ndox mi baree mhm. même bu defee ay dégâts après ñoom dinañu ko mun a xool naka lañ koy mun a rattraper mais ñun tel n'est au Sénégal ay bëf fii may wax ak yow ñun ñu ngi dëkk ci ay zone yoo xam ne c'est respecté wuñu les normes. d'accord